mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey bind bu mujj ci suratul ahzab fi borom bi de waxee ni yasalu yasaluka annaasu an issaa ci aaya 63 bi alhamdulilahi rabbil alamin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين kon mbokk ngi yeesal santaat suñu boroom mi ñu déppale ñu dajawaat ci ab néegam di fas yéene jàng la nga xam ne muy ab téeréem loole nekk loo xam ne gannaaw ba mu ñu ko sante suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam soññ nañu ca bégal nañu ca ngi ñaan suñu borom yàlla yàlla nañu ko yàlla nangul ñi nga xam ne it ñoo ñuy suivre en direct ci page Facebook xam sa diine bi ak ñu nga xam ne dañ koy nar a déglu gannaaw ba yépp ngi ñaan suñu borom yàlla boole ñu ci jaamam yi nga xam ne seen xol de aju ca jàkka ya tey mooy alarba bi nga xam ne mooy ñetteelu fan ci weeru Shaaban weeru baraxlu boobu nga xam ni ku ko wax sa xel dem ci weeru koor donte ne ni rasul sallallahu alayhi wa sallam it daana ko fonk di ko dundal ci koor gu bari muy tombeeg le 17 muy tombeeg le 17 ci non bu foog ne yasal ko la ñu jàng ah lay lam yantahi ah naam ah naam kon ñu dellu gannaaw tuuti ñu ngi jël kon aaya 60 bi la in lam yantahi almunafiqun walladina fi qulubihim marad moom la ñuy jël tey ñu ngi doon wax ne mi ngi tombeeg le 17 mars ci 2021 kon incha allah su dee Cheikh Ousmane pare na mu jëlal ñu suñu bind bu njëkk barakallahu fikum kon suñu boroom subhanahu wa taala day wax ni la in lam yantahi almunafiqun su dee ni gàttañ luwul ca mooy bàyyi la ñuy def ñii nga xam ne ñooy naafiq yi wallazina fi qulubihim marad ak ñooñu nga xam ne seen xol yee feebar da caa nekk wal murjifuuna fil madina ak yëngal ko ci fitne ya ca madina la nugriyannaka bihim kon day daan la xiirtal ci ñoom summa laa yujaawiruunaka fiiha illa qalila gannaaw ba lu ñu nekk di dëkkandoog yow ci dëkk boobee lu dul lu néew mal'uniin ñu nekk ñoo xam ne ñu ñu rëbb la ñuy doon aynama suqifu uxizu fuñ leen mën a fekk dañ leen fa jàppe wa qutilu taqtila ñu rey leen la nga xam ne muy aw reyin sunnat allahi fi alladina xalaw min qablu lii mooy aada yàlla ca la nga xam ne jiitu na ca lu jiitu woon romboon na ca la jiitu woon walan tajida li sunnatillahi tabdila te doo fekk ci aada yàlla gënnug coppite mi ngi noonu mbokk julit gis nañu ni suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam ak julit ñi am nañu ay noon yoo xam ne duñuy teqalikoo ak ñoom julit xamal ni am nga ñeenti noon ñaar ñi moom mooy sheytaan ak sa bakkan bi ñeneen ñi mooy yéeféer yi ak naafiq yi naafiq mooy koo xam ne dafa nekk ci biir julit ñi ca gëmul li julit ñi gëm yéenem yépp mooy mbon gi nekk ci moom tasaaroo ci biir julit ñi loolu nag dañ leen war a xàmmi di leen bàyyi xel looloo taxoon ba bari woon nañu daan fitneel rawatina jigéen ñu baax ñi daan muuru suñu waxee ñu naan ñoom dañoo jàppoon ne ay jaam lañu am na ñu bari ñu ni ci lu mel noonu moo tax aye ba wàcc almuhim mooy suñu borom nee na naafiq yi nekk biir madina ñii nga xam ne seen yéene yépp mooy taal fitna ci biir julit ñi suñu bàyyiwul lu ñuy def danaa la xiirtal ci ñoom loolee ñu dégg ca ni julit ñi dañuy def toujours attention te moo dina cheytaan mi ngi yónni ay ndawam li gën a rëy loo xamee ni nii bëgg na ko ci biir julit ñi mooy fexe ba ñu teqali ko fexe ba ñu noonoo loolee da ngay gis na doon fitna ba day nekk diggante jëkkër ak jabar fitna ba day nekk diggante ay frère fitna ba day nekk diggante ay dëkkandoo suñu yonent alayhi salatu wasalaam mi ngi wax ni cheytaan dana wër kaw suuf dëkk bu mu dem ñaka fa teewal ñu di ko rendre compte bokk na ñu muy gën a félicité ñe teqali ay diggante looloo taxit ku ne war cee bàyyi xel suñu borom mu ne bu ñu bàyyiwul danaa la xiirtal ci ñoom waaye mbokk fa lillahi alhamdu nafiq yooyu nekkoon madina avant yonent bi alayhi salatu wasalaam di tu di faatu mën nañu wax ni li ëppoon ci ñoom sellal nañu seen diine mi ngi noonu ndax borom bi ubbiloon na leen bunt illa allazina taabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa axlasu diinahum lillah sun borom yàlla mu ni ña ca nangoo tuub yéwénal mooy ci yàlla sellal seen diine ci yàlla ñooñu ñoo julit ñi ñooy ànd loolu moo tax ba yonente bi alayhi salaam musul xeex ak naafiq musul xeex ak naafiq musul rey naafiq bal naafiq yi léeg-léeg ñu daan wax wax yu garaaw lu mel ne abdullah ibnu ubay ibnu salul ba nga xamee ni nii julit ñëpp ñu ci bari ñu ngi mer ayum yàlla yónni ñii nañ leen rey yonente bi alayhi salaam ne leen waaw su ma leen reyee nit ñi lu ñuy wax dañ naan muhammad kat ma ngay rey ay sahabaam te loolee mbokk di mbir moo xam ni ku ne war koy moytu masalan bu ngeen nekkoon seen jàkka nit dafay indi fitna mënoon ngeen ko duma fitnaal ko waaye nag bàyyi leen xel ñeneen ñi lu ñuy wax waa jàkka jàng histoire loolee moo tax yonente bi alayhi salaam musul rey nafiq doonte ne seen liggéey moo gën a bon liggéey yéeféer yi waaye nag suñu borom mu ni su ma la xiirtalul ci ñoom it rëbbum yàlla mi nga ànd ak ñoom fu ñu leen mën a fekk rëbbum yàlla mi nga ànd ak ñoom ndax lii mooy aada yàlla ca la jiitu woon ca aada yàlla du doon loo xam ne ak coppeeku da cee am aaya yu mel nii ba mu wàccee ak yu mel na moom tax na ba la ëppoon ci naafiq yi dellu gannaaw sellal seen diini loolu kon mi ngi noonu yal na yàlla may ñu mujj gu rafet bismillah cheikh ousmane
يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها barakallahu fikum suñu boroom jalla wa ala mu ni yasaluka naasu ani saa nit ñi day ñi ngi lay laaj ca waxtu taxawaay bi su penc qul innama ilmuha inda allah neel nekk na xam-xamu lool day ca yàlla wa ma yudrika laalla saata takunu qariba waaye nag moolu la doon mën a xamal ne bisu penc day nekk na loo xam ne lu jege la inna allaha laana alkafirin yàlla day rëbb na yéefir yi ay soril na leen yërmandeem wa aadda lahum saira ca mi ngi leen di waajal mbugalum sair xaalidina fiha abada ñu sax ca sawara soosee ba faw laa yajiduuna waliyan wala nasira duñ fa am ku leen di féetewoo wala kenn ku leen di dimbali yawma tuqallabu wujuhuhum fi nnar bis ba ñuy wëlbati la nga xam ne moom mooy seen kanam ya ci biir sawara yaquluuna ya laytana ata'na allah wa ata'na rasula ñu ne way ak a neexoon ñu toppoon yàlla ca toppoon yonent yonent ba mi ngi noonu wa qaalu rabbana inna ata'na saadatana ñu ne ay yàlla ñun day dañoo toppoon suñu sang ya te mooy la nga xam ne mooy sëriñ sa wa kubaraana ak suñu njiit ña muy kilifa yi jiite woon dëkk ba fa adalluuna sabila ñoom day sànq nañu ci yoon wu yoon wa mooy yoon wa nga tëral rabbana aatihim di'fayni min al azab ay yàlla yàlla na nga leen jox loo xam ne dañ koo fulandi ci mbugal wal'anhum la'nan kabira te nga rëbb leen rëbb gu mag mi ngi noonu yaa ayuha allazina amanu ay yéen ñi nga xam di ngeen a gëm laa takunu ka allazina azaw muusa bu leen mel ne waay ñi nga xam ne dañoo loroon muusa fa barra'ahu allahu mimma qaalu suñu borom yàlla muccal ko ci lépp lu ñu doon wax wa kaana inda allahi wajiha te moom day nekkoon na ci yàlla di boroomi daraja mi ngi noonu ku am taxawaay bu màgg ci yàlla mi ngi noonu mbokk kon yéefiir yi cig saboote dañ daan baril di laaj yonente yàlla yi kañ la bisi penc di taxaw laajug yëjji laajug soril ne munta am suñu borom mu ne yastaajilu biha allazina la yuminuna biha walazina amanu mushfiquna minha wa yaalamuna annaha alxaq yéefiri seen yoon nekku ci ndax gëmuñu ko amma suñu borom mu ne ñi nga xam ne dañoo gëm moom ñi ngi ragal kañ la bisi penc di ñëw ca xam nañ ne muy dëgg boo ko xoolal élèves yi nekk terminal seen xel yépp mi ngi nekk jour d'examen bi ñuy def bac loo man man jàng man ngaa échec loolu it moo tax ba julit di ragal bis penc bis penc ngi ñëw keroog bu la yàlla di atti ndax da cay boole yërmandeem nga tabbi aljanna yal na yàlla boole ñu ca ñooñe ndax da ngay fekk ci yàlla loo foogul woon nga noonu ndax da ngay fekk ci yàlla loo foogul woon ba dem feneen loolu moo tax ba ku nekk ci ñun war naa góorgóorlu xool lan lay waajal bis boobi benn góorug caamin ñëw na ci yëriñ ci bali salaam ak i sahabaam ko yaa muhammad mu ne ko naam mu ne ko mata saa bis penc kañ lay teew kañ lay ñëw mu ne ko waaw maza aata laha lan nga waajal bis penc te loolu mooy mbir bi au lieu ngay laaj kañ la lan nga waajal bis penc bal ki nga xam ne daa xellu du laaj bis penc day laaj man lan moo mooy yóbbu ci bis penc mbokk li la yóbbu bis penc mooy sa bisu dee yowm alqiyama gëm ko mooy al iman bi ma sa yakunu baad al mawt lépp luy ñëw gannaaw de rek ci bis penc la taxaw la la bokk kañ la bis penc di taxaw ci yow ay mooy kañ la sag dee kenn ci ñun xamu ko bokk loolee kumpa la waaw nekkoon ci château boo xam ne nii ni ko yàlla tuddee burujam mushayyada château boo xam ne forteresse la mille garde-corps wér la amoo benn looy jàmbat du tee bu dee ñëwee dana la fekk gis ngeen kon kañ la xamoo ko waaye waajal ko la nga xam ne moom nga koy waajale mooy ñaar ñii al imaanu saxiix wala amalu saalix waajal bis penc ci gëm yàlla goo bokkaaliwul ak dara waajal ko ci topp sunna si yonenti boo raxul dara lii la ñuy waajale bis penc borom bi subhanahu wa taala ne xam-xamu bis penc ma nga ca yàlla waaye nag day mën naam jege na ca mbokk julit suñu borom yàlla nee ne bi mu yónni yonenti yàlla bi bis penc jege na naam ndax mi ngi yónni ay yonent ñu koy xabaare ñu koy xabaare ñu ne yonent yi mu ëppoon nañ ñetti téeméer ci ay yonent ñu koy xabaare bam ne dernier yonent mi ngi noonu kon koy jege na jege boobu yàlla waxoon dolleeku na ci nag mille quatre cent quarante nangama kon gën naa jege waaye yow mi borom xel la ma la wax gëmal ni nim la leere ne da nga dee noonu ngay gëme ni da nga dékk yàlla atte la waaye la lay itteel dëgg dëgg dëgg mooy li nga xam ne mën naa am tey ci guddi mën naa am suba mën naa am fii semaine mën naa am fa yàlla xam ca mooy déggale yóbbu ci bis pénc maa yudrika laalla saata mi ngi noonu takunu xariba borom boobu subhanahu wa taala nag ca la waxee ña nga xamee ni nii moom mooy yéefiri wax na sànq ne rëbb na naafiq yi noonu la sori la yéefiri yërmandeem ca sawara boo koy xaar loolu julit bu ci sikk sàkk yéeféer bu bokk médecin sans frontière mi ngi jël ay milliards di investir di sauver doomu aadama yi lépp luy njëriñu àdduna manga ca waaye mu weddi diini l'islam deeyaale kéeféer ku mel noonu sawara may wàcc wàccam kenn du jullit di sikk sàkk ci loolu bu ñu fa duggee dañu fay sax ba faw duñu fa am ku leen di féetewoo wala ku leen di dimbali sawara ñaare fay dugg wala iyaazu billah kenn ki mooy yéeféer bu yàlla wax yéeféer bu duggee sawara du fa génn ba faw keneen ki mooy jullit bi sàgganoon ba dugg sawara mi nga noonu moo tax suñu borom ne yaa ayyuhaa llaziina aamanu na ngeen ittaqu naar allati uiddat lil kaafiriin am na jullit ñoo xam ne daañ sàggan ba dugg sawara suñu borom yàlla ci mbaaxam indi ay ramm ramm ngay jóge ci yonent yi di jóge ci malaaka yi di jóge ci jaam yu baax yi ba baa arhamu rahimin ramm ga muy mujj ramm jalla wa ala génne ña ko soob ci sawara ñu doog a dem aljanna lan moo leen may loolu mooy dañoo gëmoon yàlla gëmoon bisi penc donte ne sàggoonoon nañ ci ay bakkaar moom la borom xam-xam yi di wax naan rubbama yawaddul lazina kafaru law kaanu muslimin rubbama yawaddul lazina kafaru law kaanu muslimin yéefiri yow bu ñu nee mbir sawara daan ñee ay waay bu ñu ne ay waay waroon nañoo gëm xoolal ñee rek ñoo doon andi di carte di sàcc di agressé di naan sàngara mbon gu ne ñoo ko àndoon tey ñu ngi nii génn nañ na ngay dem aljanna lan moo la ko mayoon mooy dañoo gëmoon yàlla amma yéeféer bi weddi yàlla xaalidiina fiiha abada borom bi di wax ni seen kanam yi la ñuy wëlbati ci biir sawara mbokk sawara ay malaaka ñoo fay nekk malaaka yooyu ñooy jàpp yéeféer yi di leen dugal ci shajeer yi di leen dugal ci takk-takk yi di leen yóbbu ci balde yi di leen yóbbu ci xasaaq dëtt yu bon ja mi ngi noonu yatuufuuna baynaha wa bayna xamimin aan seen kanam yi ñooy féete suuf seen tànk yi féete kaw ñuy jàllar bi kanam yi comme na faccam di jàllar bi ak ganaaram ci biir soosam noonu la malaaka yi di jàllar bi kanamu yéeféer yi waliyaasu billah loolee mbokk yonent bi alayhi salaam nee na la koy waral mooy wax ju bon jañ doon wax ci seen lammiñ ya mi ngi noonu baram boobu nii ba keroogee daan ñekk di rëcc ay way ak a neexoon ñu toppoon yàlla toppoon ndigali yàlla toppoon yonent yàlla su ko defee ñu woo suñu borom ay yàlla ñun de dañoo nax ñi ñu yóbbu ñii mooy suñu sëriñ sa da doon sëriñ sa ci chrétien ya ci yahud ya ci julit ña ca mooy ña doon woote woo diine ñooñu nax ana ñaata nit mbokk lañu nax ne leen kaay leen li yàlla farataal ci nit ñëpp teggil naa leen ko kaay leen yaakaar ma ma tabbal leen aljanna gaa yi loolu amul waay ah kay dañ ñoo nax ay suñu borom suñu sëriñ si dañ ñoo nax de gis ngeen sunu kilifa yi nga xam ne ñu jiite woon adduna yit ñoo doxoon suñu digganteeg diine ba jaamu wuñu la wante na borom bi ma nga leen di tontu feneen suratul nisa aw lam takun abdullahi wasia fa tuhajiru fiha bañ leen tere ngeen jaamu yàlla fi lu tax mun leen dem feneen gis ngeen ko mel ni firawna sunu borom mu ne istaxafa qawmahu fa ataawuhu la ëpp ci waa Égypte firawna moo leen influencé bañ bàyyi diine kon la nga xam ne mooy sëriñ si ak la nga xam ne mooy suñu kilifa yi jiite dëkk bi yàlla ñun ñooñu lañ tàppoon ba ñu réeral ñu ay rabbana aatihim di'fayni min al'azab yàlla jox leen duubalu mbugal ca rëbb leen rëbb gu màgg lu tax ngir ñu gën ñu mettile waaye boo dee la surati araf lu borom bi di wax wali kullin di'fu yéen ñaar ñëppay am duubalu mbugal su ko defee kilifa yit ne leen ah fa ma kaana lakum alayna min fadl fa zuqul azab yéen bima kuntum taksibun ca mbokk ñoom ñaar ñëpp a yem yow doomu aadama yàlla da laa bind may lam xel gis nga ab dof bu demoon fekk benn kaaba ga sax mu bombardé ko yàlla du ko ko toppee ndax dof la amul xel yow yàlla may la am xel bind la moom kese di la wërsëgal moom kese sant la ay ndigal benn waay ñëw ne la déedéet del liggéey di ma jox ma dugal sa poche jaamu yàlla yi bàyyil dinaa la ko garantir nga ànd ak moom ci loolu yéen a yem moom jëfandikoo jëfandikoowul xelam yow it jëfandikoowoo sa xel moom bu jëfandikoo woon xelam dana xam ne boo jëloon adduna ak li ci biiram teg ci loxoom ngiree mu fexe ba réeral la dara jaru ko waaye yéen ñaar ñëpp a yem moo tax suñu borom ne li kullin di'f yéen ñaar ñëpp yéen a am double mbugal borom boobu subhanahu wa taala ni loolu mooy xaar ña nga xame ni ni dañoo nekk ci biir sawara gannaaw ba nag mu woo jullit ñi saar bi dana ci woo jullit ñi ñeenti yoon dana ci woo suñu yonent yàlla juróomi yoon ya ayuha nabi ya ayuha nabi gannaaw ba ya ayuha allazina amanu ya ayuha allazina amanu muy wañu ne saaru julit ñi de la mu gën a tegtale mooy yowmal qiyaama suñu borom yàlla nee na amul kenn kuy rëcc to lu teewoon ma topp ma samba wala ma demba rëcc leen na dong lay amee yowmal qiyaam ak ne waxoon ma topp yàlla ak yonent yàlla du loolu ngeen jàng yaa laytana ataana allah wa ataana rasula képp ku la mën a woo ci aw yoon yoon woowee safaanoog yoonu yonent yàlla wallahi yowmal qiyaama da nga rëcc topp ga nga ko doon topp loolu ak lu ak lu mu la mën a woo jëmi yaa laytana ataana allah wa ataana rasula loolu mooy mbir bi yonent yàlla Muusa yàlla da ko yónni ci bani Israil façon coono bu nañu teg ko ko jiñ nañ na yaram bi dafa yàqu dem nañ ba jiñ ko lu nekk xatta li indi fitna sunu Sénégal gi sax dem nañ ba jiñ ko ko xaaruna am na benn soxna bu dem mu neexal ko xaalis ne ko waxal ni dama ëmb Moussa ma mu ëmbal lu ne teg nañ ko yonent yàlla Moussa lor bu nekk bam naan yaa bani israil li ma tu'zuna ni wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaykum mooy yéen bani israil tax ngeen may lor ci xam ngeen yonent yàlla la suñu borom mu ne ay yéen jullit ñi nag boo leen bokk nañu mel ni lor Moussa Moussa alayhi salaam ndax noonu la naafiqi doon lore yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan toog atte ba pare benn waay jóg cim atte bi de kenn siitu ci yàlla gis ngeen saxaaba yi bocc seen jaasi mu ne bàyyi leen leen gis ngeen ah lu nekk ñu wax ko ko huwa uzunun moom moom waay benn nopp la rek mi ngi noonu bàyyi bu leen mel ne ñi loroon yonent yàlla Muusa donte ne yàlla muccal na ko ci lépp loo xam ne dañ ko doon tuumaal ndax moom ko amoon ay daraja la ci ya- ci yàlla mbokk yonent yàlla Muusa kaw suuf juróomi nit ñoo fi gën ci ñi fi mas a jaar yonent yàlla nuux yonent yàlla ibrahim yonent yàlla muusa yonent yàlla isa ak seen sang ñoom ñëpp yonent yàlla muhammad mooy juróom ñi ñoo gën ci mboolem ña nga xam ne nii dañoo mas a teg seen tànk ci kaw suuf moo tax borom mu ne wa kaana inda allahi wajiha teewul lu ne teg nañ ko ci ab deram kon nga la waay julit bul jàpp ne jomb nga ñu yàq sab der déedéet bul jomb nga jàpp yàq sa der sun mag ñi dañ naan bul bañ ñi yàkkal la ci gaalu xaj fexeel rek bu la fa kenn fekk ngay lekk am déet mi nga noonu bul bañ ñi yàkkal la ci gaalu xaj fexeel ba kenn du la fekk ngay lekk mooy liñ lay tuumaal na yem ci seeni làmmiñ waaye duñ ko gis mukk ci say jëf waaye mbokk jurit lu ne mën nañ la ko tuumaal yaa fi def lii yaa fi def lii yaa fi wax lii yaa fi wax lii fekk loolu dara amu ci ca yow fekk boromi daraja yu kawe nga ca yàlla mën nañoo yàq sa der ci société bi yépp fekk ne yàlla moom yow la gën a fonk ci dëkk bi wa kaana inda allahi wajiha mi ngi noonu cheikh ousmane
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما jazakumullahu xayra suñu borom jalla wa ala mu ne ya ayuha allazina amanu taqullah e yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm ragal leen yàlla wa qulu qawlan sadida te ngeen di wax wax joo xam ne wax ju jub la mooy ju dëggu ca maandu yuslih lakum amalakum kon day daan yéwénal seeni jëf wa yaghfir lakum zunubakum ci it dañ leen baal seeni bakkaar wa man yuti illaha wa rasula képp koo xam ne topp na yàlla topp ab yonentam faqad faaza fawzan azima ku mel nii day texe na texe goo xam ne gu màgg la inna aradna al amanata ala alsamawati wal ard ñun day gaaral nañ li nga xam ne mooy kóolute ca asamaan yi ak suuf wal jibaali ak montagne ya fa abayna an yaxmilnaha ñoom ñépp ñu bañ ci di ko gàddu wa ashfaqna minha ñu ragal tiit ci gàddu loole wa xamalaha al insaan doomu aadama moom daal di koy gàddu innahu kaana zaluman jahula moom de nekk na aji tooñkat aji kuy réere mbir yépp mi ngi noonu ku réer li yuazib allahu almunafiqina walmunafiqat lii ngiree yàlla ra yàlla mbugal naafiq yu góor yi ak yu jigéen yi wal mushrikiina wal mushrikaat ak bokkaalekat yu góor yi ak yu jigéen yi wa yatuuba allahu ala almuminina walmuminat yàlla daa di jéggalit mi ngi noonu ñeel julit ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi wa kaana allahu gafuran rahima sa borom yàlla nekk naa di aju koy jéggale aju koy yërëmaate mi ngi noonu bokk suñu boroom day wax ne yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm gallaway ragal leen yàlla mbokk ki gëm mooy ki gëm yàlla gëm ne bisu penc mi ngi koy xaar gëm ne yàlla wàcc ne ay malaaka yu indi ay téere ñu wàcc ko ci ay yonent muy santaane ay ndigalam ragal leen yàlla moomi ni ñuy ragale yàlla mooy def ay ndigalam bàyyi ay tereem la gën a màgg ci lim digle mooy buñ ko bokkaale ak dara la gën a bon mooy bokkaale ga ñuy def loolee kon nañu ragal yàlla bokk na ci la nga xam ne mooy baasu ragal yàlla mooy di wax wax boo xam ne wax bu jub la qawlan sadida yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na benn doomu aadama du jub lu dul xolam dafa jub kenn ci yéen xolam du jub lu dul làmmiñam dafa jub làmmiñ boobi la nga xam ne mooy qawlan sadida la ca jiitu mooy waxi tawxid bokk ne fenkat bi gën a rëy ci kaw suuf mooy kiy wax ak bokkaale mi ngi noonu loolu ñu bàyyi ci xel bu baax wax bu jub la ca jiitu mooy laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah gannaaw ba lépp looy wax doon lu jub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maa ngi leen di dénk ak dëggu ndax kat fa inna sidqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna dee leen fexe ba lu ngeen di wax rek fekk dëgg la loolu nag xeex ak bakkan dëgg ngay def pour man ko suñu borom nee na dëgg gi même buy dal sa kaw même buy dal sa say waajur waxal ñu ngi noonu nee na suñu borom nee na wala yonent bi yàlla nee na loolu bu amee suñu borom yàlla di leen di yóbbu ngeen baax ku bàyyi fen rek baax gis ngeen ku bàyyi fen rek baax da ngay baax ca mbaax moo la yóbbu aljanna mu ne nag moytu leen fen ndax fen day yóbbu ci mbon doomu aadama bu xisee ba mën a fen lu ko neex def lu ñu wax mu wax ba génn ca ca mbon googu da yóbbu sawara loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax borom bi ne su ngeen dëggoo ma yéwénal seeni jëf gis ngeen quulu qawlan sadida yuslih lakum amalakum doomu aadama heure bu demee ba ragal boromam ragal goo xam ne làmmiñam wi du ci génn lu dul dëgg suñu borom yàlla mooy féetewoo dëppale koog du def lu dul dëgg lu dul lu yàlla gërëm am naa contraire ba mooy contraire ba suñu borom mu ne danaa yéwénal seeni jëf ba pare danaa leen jéggal seeni bàkkaar te mbokk julit amul kenn koy mën a dëppoog jëf ju yiw lu dul ko yàlla jàppale gannaaw ba it ñu xam ne bàkkaar munta mucc doomu aadama mun a mucc ci bàkkaar ku nekk ak na nga toll ci bàkkaar waaye borom bi nee na su wax ji dëggoo danaa yéwénal jëf yi jéggal leen seeni bàkkaar bokk na loo xam ne nii doomu aadama yi moom la ñuy wut ñee nekk ca politique ba ca sport ba ñee topp milliards ya ñee topp étudier ñépp li ñuy bëgg mooy texe mooy am ak texe suñu borom yàlla nag nee na la nga xam ne mooy dëgg-dëgg texe mooy nga fexe ba topp yàlla topp yonent yàlla xamal yow jullit karaama gi gën a rëy gu yàlla di teral doomu aadama ci kaw suuf du mu nekk président de la république du mu nekk chef d'état-major général des armées du nekk le plus grand milliardaire waaye teraanga bi gën a rëy bu yàlla di jagleel ab jaama mooy al istiqaama mooy mu sax ci yoonu njub topp yàlla topp yonent yàlla suñu borom yàlla nee ne kii def lii day texe ne texe goo xam ne texe gu màgg la lu tax mooy suñu borom da ko may xayaatan tayiba dund gu teey même bu doon dafa nekk kii dugg ci néegu ñaxam di tëgg ci lalu bant day ànd ak ndal xel day ànd ak féex day ànd ak lépp àdduna woyof ci moom mi ngi noonu su demee àllaaxira nag suñu borom jox ko nguur goo xam ne nii nguur gu màgg la am maa keneen ku dul kii mboolem bànneex bu mu am dafay nekk loo xam ne nii ci kaw rek la waaye yéeféer wala ko safaanu ndigal yàlla mënul am bànneexu dund ci biir suuf ci kaw suuf mën na am nguur alal pal siiwaay duna mën na ko am waaye mënul am texe gu mat sëkk mbokk aay bi jàpp naa ne yéen ñëpp su ngeen daan dem ci mariage yi da ngeen fekk yonent bi alei salaam di ko jàng jëree la nga xam ne ëmb na ko ci woo julit ñi benn ci iman woo leen ci taqwa woo leen ci wax ju jub woo leen ci fexe yéwénal seen i jëf topp yàlla topp yonent yàlla moo tax néew na yonent bi alei salaam daan dajeeg julit ñi ci jataay lu dul daana leen jàngal aaye bi boole koog aaye ba ñëw ci suratu nisa aaye ba ñëw ci suratu ali imran loolu mi ngi noonu borom bi jalla wa ala woo na asamaan woo suuf woo montagne yi ca mbokk gëm leen ne asamaan daa am yéeg-yéeg suuf am yéeg-yéeg montagne yi am ñoom yéeg tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihinna walakin la tafqahuna tasbihahum suñu borom yàlla yàlla nee na asamaan yi ñi ngi koy sabbaal suuf yi ngi koy sabbaal montagne yi ngi koy sabbaal looloo tax bi doomu aadama jëkkee wax yàlla am na doom takaadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqu l ard wa taxiru l jibalu hadda ñoom dañuy xam li doomu aadama yi di def dañuy sabbal seen borom suñu borom jox leen yëg-yëgu ci asamaan ak suuf ak montagne kaay leen ma jox leen amaana amaana mooy jox leen samay ndigal bàyyi leen ak seen bopp ngeen jaamu ma mu neexe leen wala mu bañ leen a neex ñoom ñëpp ñu naa déet yàlla bàyyi ñu rek ñu jaamu la jaamu goo xam ni duñ la mën a may loolee suñu borom yàlla gaaral ko la nga xam ne mooy suñu bay aadama bay aadama nangu na loolu ak njabootam loolee borom bi subhanahu wa taala ne xamalaha al insaan doomu aadama la yàlla jox amaana ca mooy ndigal yaa ngi nii tere yaa ngi nii léegi nag suñu borom mu ne li ëpp ci doomu aadama yi day ay tooñkat lañu ca mooy ndigali yàlla ya jëfewuñ ko tere ya bàyyiwuñ ko lu leen ci yóbbu mooy jahul xamuñu dëgg-dëgg seen borom maa qadarullah xaqa qadri looloo tax ñu koy moy te it xamuñu ban conséquence moo leen di xaar ci loolu moo tax ñu koy moy loolee mbokk kon ñu gis ni amaana bi gën a màgg mooy amaana bi jóge ci borom bi waaye borom bi lim ñu sante ñu sant ñu wattu amaana bi jóge ci moom noonu la ñuy sante ñu wattu amaana bi jóge ci suñu biir looloo tax ba yow ndawal julit dafa la attention lool di bokk ci kuy gérer ay kees dafa la attention lool di bokk di gàddu responsabilité lu dul ne dem nga ba am yaqin ci yow ne lii mën nga ko lu dul ne bañ nga ko ba sonn ñu jox la ko su booba yàlla dimbali la ci waaye amul lenn lu gën a nekk danger nga gàddu la nga xam ne mooy responsabilité doomu aadama yi borom bi nag subhanahu wa taala ni lii def na ko ngiree mu mbugal naafiqi yi góor yi ak jigéen ñi ak bokkaalikat yi góor yi ak jigéen ñi ñi nga xam ne dañoo bàyyi ndigali yàlla daa di topp seenu tooñ topp seenu ñàkk xam waaye yët suñu borom yàlla jéggal julit ñu góor ñeeg ñu jigéen ñi ndax mbokk amaana boobee ca mooy ndigal yi yàlla digle yépp tere yi yàlla tere yépp nga def ko à cent pour cent yàlla mayu ko doomu aadama amul benn doomu aadama lu dul yàlla nattoo na ko ci tarxiis goo xam ne da cay tarxiis yonent ak ku dul yonent amma yonent yi yàlla aar na leen ba duñu dugg ci kabair te it yàlla subhanahu wa taala da ngay gis ne da leen di jéggal kenn ci ñoom la yàlla garanti woon ne ko yow moom fii ci àdduna laa la garantil ni loo mas a def ak loo nar a def yépp jéggal naa la ko looloo tax muy yeyoo shafaatul kubra yawm al qiyama suñ demee ci yonent yàlla nuux aadama mu gàntal nuux ibrahim musa isa isa day wax ne dem leen ci yonent yàlla muhammad ndax moom rek la yàlla jéggal mboolem loo xam ne nii def na ko ci ci ci kaw suuf waaye kon mi ngi noonu suñu borom yàlla nag nee na su ngeen nangoo ragal yàlla topp sama yonent danaa leen jéggal seen i bakkaar yéen ñi góor ñi ak yéen ñi jigéen ñi loolu it mbokk saar bi ba mu commencé ba tey suñu borom mi ngi fàttali ni jaamu yàlla gi du pour góor ñi de innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal jàng ngeen ko fii it da ngeen gis naafiq yi góor jigéen ñi gëm yàlla góor jigéen muy wone ne mboole mi jaamu yàlla jigéen dafa war a takk ab sërëm fexe ba góor ña duñ ko ca man fexe ba jege boroomam moytu lépp luy bakkaar ca xam ne bu jaaree fa neex yàlla day moo góor ñaay ànd tabbi aljanna waaye bu jaarul fa neex yàlla day góor ñi ma àndaloon lu ñu baax baax na doon ay baayam lañu ay borom këram lañu ak lu mën a doon du ko tee dem tabbi sawara suñu borom yàlla nag nee na mooy ghafuur ghafuur rahima say bakkaar lu mu bëri bëri bëri bëri su dee tuub nga dellu ci yàlla yàlla balle lépp ca borom boobu it mooy yërëm ay jaamam moo tax muy jagleel leen aljanna ajjane kenn du ko liggéey moo cay dolli yërmandeem képp kum jéggal mucc nga ci sawara kum yërëm tabbi nga aljanna yal na yàlla jéggal ñu yàlla yërëm ñu suratul ahzab bi ñu jeexal mboolem lu ci yàlla digle yal na yàlla wërsëgal ñu taxaw ca mu nangul ñu ko mboolem lum ñu ca tere yal na yàlla dox suñu digganteeg moom wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain